di boole ci réseau électrique bi ñu defee ne fa lay yem mu daal suspendre troisième tranche bu woyofal la keneen ku yëgle yi daal àddu ci ay mbiram bokk na ci Ousmane Sonko Walf Quotidien di xam ne ni nag ay mbiram mi ngi ci juróom-ñaari sages yi rawatina nag lu jëm ci dépôt yi candidature am nag moom njiital Pastef yër leen yëgle bi ci jamono joojee nag Vox Populi moom àddu jëmale ci taxawaalu gi nga xam ne ndaw Ousmane Sonko yi ñu ngi koy taxawaalu boobaak léegi yéene kaay bi nag ne buntu yëpp la ñu leen tëjal ñoom mandataire ak huissier naka noonu caisse de dépôt et de consignation ca ministère de l'intérieur naka noonu ca daaf kii di ayib metre maître Ciré Clédor lii akub huissier foofee yëpp nag mënee suñu faa dugg kaay bi ne kilifa yi nag lañ ca jublu bokk na ci gàntal leen nag ci jot ay dossiers yu soxal candidat bii di Ousmane Sonko loolaa tax nag jamono ji avocat yi koy layool moom Ousmane sonk nag ña ngay yëglu ba noppi nag di yuuxu wallu ña ngay fàttali sax kii di président Macky Sall nag ngir mu daal di sàmmonteeg diggé yi nga xam ne rek diggoon na ko askan wi ne dina jëfe nag lépp loo xam ne rek yoon na ko réew Sénégal ak lajju goo xam ne rek moom la Ousmane Sonko lajju jamono jii que léeg-lekaay bi di Le Soleil daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi ne bokkam moom Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi nag dara wóorugu ci ndax nag ay ndawam dem nañu ca caisse de dépôt et de dem ca ministère de l'intérieur te mënuñoo fexe nag ba am li ñu bëgg Sud Quotidien nag di ko feelu ne moom kay Ousmane Sonko nag dafa mel ne jamono jii xorom ci ci ndax nag fépp ñu ngi ko fay tudd bokk na ci xeex bi nga xam ne rek moo jëm ci delloowaat ko ci liste électorale yi lu jëm ci coow coowal Prodac ak Mame Mbaye Niang nga xam ne rek dinañu ko àttee ñeenti fan ci weerub janvier atum 2024 Ousmane Sonko ji nekk ca kaso ba ndax juróom-ñaari tuuma yi ñu gàll ci ndoddam ci geneen wàll nag ñuy laam-laamee bokkam ci élection yi nga xam ne rek moom la amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum yéenekaay bi nag ne ca toftalee direction générale des élections ak caisse de dépôt et de consignation yi tëjal ay buntam nag ay mandataire Ousmane Sonko combat suprême rawatina nag li dox ci digganteem ak Mame Mbaye Niang mu ne audience bi dinañ ci xam dara ñeenti fan ci weeru janvier le témoin nag dellu soit ci candidat yi mu di Karim Wade Khalifa Babacar Sall ak Ousmane Sonko yéenekaay bi ne jiixi a ngay am nag jëm ci parrainage yi soxal député yi donte ni nag mënta indi ay gàllankoor ci ñoom waaye nag dina doon loo xam ne nag mën na leen assurer ngir ñu daal di valider seen candidature ca conseil constitutionnel lu ci mënti doon enquête yëglekaay moom ma ngay samp ab laaj ne kan mooy contrôler justice bi dossier politico-judiciaire yu bëri yoo xam ne rek jamono ji teg nañu ko ci kaw Ousmane Sonko ay coow yoo xam ne rek boobaak léegi ñu ngi ko cay tudd jamono joojee nag l'observateur moom ma ngay dellu siwaat nag ci meeting investiture nag yi nga xamante ne nii war nañ koo amal jëmale ko ci kaw candidat APR yéene kaay bi ne bu weesoo ba ñu amalee woon ca Paris waa PS ak waa AFP nag tànn nañu candidat bii di amadu baax waa APR fas yéene amal tey jii nag seenub investiture li waral nag yéene bi ne Amadou Ba kay jamono ji nag ma ngay doxal bu baax a baax bés bi le Mansour daal di dellu suwaat nag tey def ab taxaw seetlu ci jamaa beek ni ñu ko war a wutee fii ci réew Sénégal mu ne nag ab mission protection nag bu ONU jéemoon nañoo ñëw fii ci Sénégal ngir wut si fii jamaa waaye nag 0,64 karat képp dañu fi daal di jot a jëlee libération moom daal di dellu suwaat nag ci jamono joojee ci ñaari pompiste yi nga xam ne nag teg nañu leen loxo ginnaaw bi ñu fàttee nag ab gérant station foofee ca diwaan bu Touba ginnaaw bi ñu leen placé ci garde à vue jamono ji nag defee nañu ji nag Ndella Madior Diouf le public nag ma ngay àddu ci li xew nag ci pépinière am bi nag yéenekaay bi ne yi di xaar ak waa la santé et de la famille ngir dem nag xool la ñu fay tudd ndax lu am la lam déet leneen loo xam ne rek am na ci biir l'observateur bokk na ci soxna yi nga xam ne dañuy dund lii di agression sexuelle yéenekaay bi nag demoon seet ji leen ñenn ñi nag ña ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne donte ne nag ba ñu ko dundee jéem nañoo def seen i pexe ngir mën koo fàtte ba wëyal dund waaye am na ci